monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu sama collègue bu député yi monsieur le président code électoral bi li ñu ci gis mooy baaxul ndax dëppoowul ak suñ constitution code électoral bi li ñu ci gis mooy boo ñëwee article 29 L 29 ak L 30 boo xoolee li si nekk dëppowul ak suñ constitution ndax dama jàpp ne nit su demee ba war a ñàkk ay droits civils ak politique juge moo ko war a wax waaye du nun législateurs yi nun ñoo ko koy xaj kon dama jàpp ne dëppawul ak suñ constitution ndax boo demee ci déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 l'article 25 du pacte international relatif au droits civils et politiques de 1966 dispose que tout citoyen à le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques. nga ñëwaat ci fi nga xamante ne yéen moom ngeen di moom ngeen di roy muy France France code électoral bi amoon na fa bi mu amee bi ñu ko joxee conseil constitutionnel maanaam da koo gàntal ci décision boo xam ne mi ngi ko jël numéro 2010 euh, euh, euh, tiré 6 bar 7 di 11 juin 2010 ci la waxee woon ne article 7 boobu nañu ko dind ndax méngoowul ak constitution bu France loola day wane ne nun itam Sénégal L 29 ak L 30 bi méngoowul ak suñ constitution ndax li nga xamante ne nii mooy suñu constitution waxul loolu te dama jàpp ne électeur bi warul la ëpp doole constitution bi protocole bu CEDEAO yi tamit ci article 2 tiré 3 moom it wax na loolu kon dama jàpp ne monsieur le ministre suñu bëgg-bëgg mooy code bi ñu jëlaat ko delloowaat ko commission bi ñu xoolaat ko ndax baaxul ndax dama jàpp ne tey Sénégal tey toll na foo xam ne boo jëlee tey Sénégal yëpp tey ñëpp tey ñi ngi en sursis ndax tey ku leen neex tey suba mun na bañ a bokk ci ay élection muy bépp Sénégalais ndax tey bu ngeen nee képp koo xamante ne dañu la tëjati lu ëpp un mois même su fekkente ne surgi la amatuloo sa droit civil ak politique ñàkk nga ko mënatuloo bokk ci ay élection kooku Sénégal yëpp a ko bokk kooku Sénégal yëpp ñoo ko bokk ndax loolu dafay wane ne yéen da ngeen a jóg yéen a ngi raam jëm ci réew moo xamante ne dama jàpp ne buur ngeen bëgg a programmer seen bopp ndax dama jàpp ne Sénégal laajatul loolu dama jàpp ne Afrique weesu nañ foofu Sénégal weesu na foofu ba tax na monsieur le ministre d'accorduñ ci ci biir foofu it ci lay duggee wan la ne la am na lu fi jaaroon te li fi jaaroon placé nga pour tontu ma ci ndax dama xam ne dama dama lay laaj li nga xamante ne mooy CREI vingt 81 maanaam loi quatre 81 moom moo defar CREI bi mu defaree CREI foofa délit d'enrichissement illicite moo fa ne ca délit d'enrichissement illicite bu ñuy cay daan nit ñaari daan rek la mën a am mooy amande la ak tëj la kaso moo waral yow bi nga nekkee procureur bi nga demandé pour que ñu xañ Karim ay droits civils ak politique am bi daf laa gàntal ndax amul woon détournement amul woon escroquerie amul woon yeneen yi ma jàpp ne tey jii nii seen article 29 bii Sénégal yëpp war nañoo jóg taxaw pour que mu bañ a jàll parce que lii su jàllee nekkul luy defar mais lu yàq la ndax li mu wax mi ngi nii ne doit pas être inscrit sur la liste électorale. Les individus condamnés pour crime, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durer supérieure à un mois, assorti ou non dina amende pour l'un des délits suivants vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants détournement et soustraction commises par les agents publics, corruption et trafic d'influence, contrefaçon est en général pour l'un des délits passible d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement. ma jàpp ni lii Sénégal yëpp war ñoo jóg ñu àndandoo ñu xeex pour que loi bi warul jàll. beneen bi ci topp mooy mission d'audit yi nga xam dañ fee jaar muy de 2010 2011 ba 2018 par exemple 2018. mission d'audit du fichier électoral du 26 février 2018, les experts de l'Union européenne, PAS 27, ont pointé des incohérences entre le code pénal et le, et le code de procédure pénale d'une part et le code électoral d'autre part. Cela remet clairement en cause le principe. mission d'audit bërki démb bi yi tamit 2021 bi gis nañu ne wax na ne article 29 ak article 30 ca ñu nekkoon article 31 article 30 ak article article 31 ak article 32 tey ngeen soppi ko indi ko article 29 ak article 30 amatuñu place ci biir code électoral bi je vous remercie chers collègues point yi nga xamante ni acteurs yi d'accorduñ ci l ak l si la bokkoon loolu moo tax ça n'a pas fait l'objet de consensus ça c'était pour d'abord euh, benn précision bu ma bëggoon indi ci qualification nature question bi nga xamante ni moom lañ posé pour demander d'abord que ñu écarter ko mais dafa am deuxième niveau de précision bu ma bëggoon apporter également le deuxième niveau de précision mooy lii euh, député yi ak président de la république am na lu yoon prévoir ci li nga xamante ni mooy constitution bu ñu demee ci article 78 de la constitution ak article 74 de la constitution bu ci nekk am na lu mu prévoir bu fekkente ni da député yi un dixième bi dañu jàpp ni dafa am ay dispositions yoo xam ni àndul ak constitution loolu la ñuy wax la saisine facultative tey du bisam lu nekk dafa am waxtoom bu ñu nekkee ci yoon léegi li nga xamante ni mooy saisine obligatoire à chaque fois que dafa am ay disposition organiques le président de la république obligatoirement bu ñu voté loi bi ba pare dafay saisir le conseil constitutionnel et c'est le cas bis li nga xamante ni mooy saisir facultative député yi mun nañ ko def ci un dixième mais loolu du bisam tey bu fekkente ni voté nañ loi bi ba tey ba pare moom lañ ko mën a def loolu nag mooy leeral bi nga xamante ni buggoon naa ko indi pour wax nii dañu dañu indi wax boo xamante ni jotagul ñu ngi demandé ñu rejeté ko merci. majoritaire minoritaire ñoo fi nekk lan moo ñuy àtte mooy wote nit yëkkati nañ loxo. juróom fukki nit ak nangam xaw ma ñaata yëkkati seen loxo boobu recours la bu ngeen ak feneen fu ñu mën a ñaane ji recours xam ma fan lañ koy ñaanee ak ku leen di atte ama compétence dong ngeen di dégg loolu rek ngeen di dégg parce que fii démocratie moo fi dox da ngeen koo def ci <coughs> da ngeen koo def ci commission ya alhamdulilah ñu gañe leen ngeen defaat ko fii ci assemblée ñu gañe leen kon ña leen di déglu ca biti ngeen ñëw ñu naan wate nañ sans recours wate nañ sans nangam wala làq nañ dossier bi defe naa yéen ak ñooñu waxkat yooyu nekk ca biti te rusuñ dara yéen a ko bokk ndax fii toog nañ fi dégg fi x x mosu fee am toog nañ fi dégg ne àtt nañ ba pare këlee am dëgg te demuñ sax commissariat te ay député ñoo ko doon wax ak i borom xam-xam yu nekk ci biir réew mi di ko def ay débat loolu nag réew bu amee ci réew képp ku nekk ci réew ma war ngaa ragal war ngaa tiit ndax kilifa bu demee bàyyi wax loo xam ne lii dara leeru ko ci ndax dangay xamb ay yàlla nag moo ne man rëbb naa kuy xamb seytaane kon ñiy xamb seytaane saytaane si yépp su ñëwee ci seen bopp laay xapp euh, ñuy sant yàlla bu baax di xam la ne loi bii jéem a njaay jërëjëf parce que leer na président Moustapha Niass jërëjëf parce que leer na lu leeree nii toujours damay wax ne amul fenn ci Sénégal amul fenn ci Afrique Sénégal rek a ko am démocratie bi fi nekk yow loo def ñu wote gañe la waaye nag munul ñàkk dama Macky dafa mës a ñëw Nioro di inauguré gars yi wax seen tubaab français yu saf-sap ma jóg jël na leen tey may tamit ma wax wolof yu ñor xob bi ma jógee ay wolof laa wax waaye boo jógee ca daara ja jàngoo tubaab jàngoo dara bëgg boos bëgg ku la gis bëgg daraja ba nga bàyyi liif laam raa ba nga jàngoon ñëw bugg a dugg ci ABC boo xam ne xamoo ca tus njuumte dong nga ciy jëlee njuumte rek te njuumte yooyu du ngeen mos a tàggoog moom te tamit damay wax démocratie dafa am solo suñ waxee ñu ne askanu Sénégal ban askanu Sénégal a wax réew pour ñu xam pour loi am mu ngi commencé ci référendum nga wër yëgal Sénégal yëpp adduna bi ne leen lii ak lii lañ bugg a def su ngeen ko watee ñu continuer ko nit ñi wate référendum boobu wate way ñëwal ñu wëlbateku dem assemblée waaw léegi assemblée ngi fi cour de cassation a ngi fi intérieur a ngi fi leneen ak leneen a ngi fi lan mooy xewati ngay dem nit ñi kenn ku ne nga naan yëgal ma président de la république bu nit ñi fal ba pare yow nga nekk baadoolo bu nekk fële naan li muy def yëgalul ñu ko yëgalul ñu ko lan lañ leen di yëgal ah dara lii su fekkoon ne nit dana am gàcce wala nit am kontante lii gàcce la kontante la ndax yow luñ def nga sikkal ko luñ def nga wax loo xam ne xamoo ci dara te yow doo am gàcce waaw ñu war a kontaan nga xam ne ñun wote na gañe na moo ñuy may doole fu ñu woteeg yéen gañe xam ne dañ leen di yëngate xam nañ ne yéen mënu leen dara waaye nag il faut ñu topp li yoon santaane ak yéen ba mu mat ngeen xam bu ngeen demee recours ku ngeen ko yóbbu fu ngeen di yóbbu dossier fan xanaa Mali ngeen koy yóbbu waaye du Sénégal Mali moo ñuy àtte yéen de xamu leen fu ngeen jëm salaamaaleykum wa rahmatullah